discours bi mu doon amal ci Daaru Musti secrétaire général bu parti socialiste gis-gis bi la am ci kàddu yi nga xam ne njiiti réew mi yëkkati na ko fukki fan ak ñeent ci weeru join ci ndakaaru discours boobu mu wax lim ci wax yépp amu ci lenn loo xam ne mun nañ ko jàpp lenn loo xam ne am na ci importance ci ci ci waxam te sénégale yi sax ñu ci bari léegi suy wax duñ ko déglu parce que dañu jàpp ne li muy wax euh, euh, tegu ko fenn su ko neexee mu génn ci suba wax waxet ah, waaw Eh, be pare it yokk ci ne ah. waaw kuñ kuñ dig mu gëm ko moo tooñ boppam xam nga yooyu soo waxee sa wax ba yëpp pare nga yokk ci loolu dafay mel ni li nga wax yëpp benn benn amu ci solo. moom Ousmane Tanor Dieng gis ne daal opposition bi xaarut ci njiitu réew Maître Abdoulaye Wade lenn lu dul lii. moom war na engagé wu wax ne dinaa organiser élection yu leer yoo xam ne du am. Euh, benn jiixi jaxa moom secretaire général bu parti socialiste wax na ne nag élection présidentielle yu 2012 yi dañu am solo lool ci bëtu ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi dëkk Sénégal waaye tamit ñi nekk bitim réew bu tax na laaj nañu dem ci ñi nga xam ne daal ñoom ñoo jiite mbooloo yi waxtaan ak ñoom. comme chef religieux yi ñoom ñoo ñu njobooti ñun ñëpp ñoo njobooti ñi nekk ci parti yi te ñoom aussi mbiru euh, Sénégal ñor na leen. jàmm lañ fi bugg ah nañ leen yëgal ne pour jàmm am fi foog élection yi jaar ci yenn ci chef religieux yi nañ ko continuer fii nga xam ne mooy euh, mooy daaru nañ ci waxtaan ak euh, sëriñ Bass Abdou Khoudoss mooy porte parole bi moom mu dem su demee waxtaan ci ak xalif bi. ñi nga xam ne yëpp ay leader d'opinion lañ suñu waxee ñu déglu leen am nañ mbooloo Sénégal soxal na leen dañu waxtaan ak ñoom pour que ñu xam ne sur le plan international aussi. même chose d'ailleurs. Ousmane Tanor Dieng fekk jullit àjjuma fi nga xam ne moom mooy Daaru Musti bàyyi ko fa daal di siyaare ki nga xam ne moom mooy Serigne Cheikh Khady Mbacké di xalifa maam Thierno Birahim Mbacké ak njabootu maam Thierno Birahim loolu nag jëm ci màggalu Daaru Musti gi nga xam ne ñu ngi ko jàpp si dimanche ji. Le rôle, euh, vous savez, l'opposition est faite pour euh, s'opposer, d'ailleurs à tort ou à raison, mais enfin ça ce n'est pas un problème. Euh, euh nous, nous, nous nous donnons Euh, leur rôle c'est de critiquer, il faut les laisser critiquer et continuer à travailler. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Le peuple sénégalais est seul juge et je sais que le Sénégal sait choisir ses dirigeants. Je crois qu'il faut tirer sur la sonnette d'alarme, que tout le monde se rende compte que si les choses continuent comme ça, on ne sait pas comment ça va finir. Ça va déchirer la société, ça va déchirer les familles, ça va déchirer les pays. Donc c'est extrêmement dangereux. Maintenant, Euh, le problème est que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Bon, y a pas, les, on est, on l'État est désarmé face à ces situations-là. Mais il faut y réfléchir, il faut discuter pour que nous sachions, nous, comment gérer nos, les réseaux sociaux au Sénégal. On ne doit pas les gérer de la même manière qu'on les gère aux États-Unis ou en France. Ah, opposition, moi, moi, opposant, critiquer, bon, euh, pour opposant opposition systématique la c'est-à-dire lu jóge ci nguur gi rek baaxul xam nga kooku kenn mënu ko dégg waxuñu ne yëpp baax na quand waaye li nga xam ne Macky Sall def na ko lu ne fàng la bilan bi amul benn werante ne bilan bu baax a baax la def ba mu fi ñëwee mille neuf cent deux mille douze ak deux mille dix neuf mu sept yi ku ku dem ci Sénégal wër région yi xam ne Sénégal def na jéego bu mag. dans la bonne direction mais opposition moom loolu mooy rôle mooy opposé wu di war ne ne lu ñu def baaxul lu ñu wax baaxul bon ñoom ñoo mën waaye nag li gën a am solo mooy ñu wax Sénégalais yi ne ñoom suñu leen falee lii la ñu war a defal Sénégal voilà. Sénégal bokkul ak yeneen réew yi am na lu ñu fi am luy am Sénégal euh, ak fi Sénégal toll ak li nga xam ne yëpp yàlla ci musal Sénégal moo tax ma jàpp ne Sénégal bokkul ak yeneen réew yi kon su fi dara xewee dañ ko war yéen ñi nga xam ne yéen ciy liggéey. d' abord yéen moom ay professionnel ngeen xam ngeen lan mooy dérapage ak li fi nit ki war a yem ak li mu war moytu yooyu yéen ak ñi nga xam ne ñooy décideur politique yi dañoo def benn benn conclave benn séminaire teg ko ci table ji waxtaane ko ba seet ñun Sénégal naka la ñuy fexe be lu mel noonu ñu arrêté ko parce que suñ ko continuer ni fi mu jëm.